ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides xalifteefu sëriñ Amdi Fall ibnu sëriñ Modou Mbenda Fall xalif général des Baye Fall sëriñ Fallilu Fall moom Cheikh Mouhamadou Aminata Fall sëriñ Moustapha Fall Mbar jëwriñu sëriñ Fallu Fall ak rakkam jëwriñam sëriñ Fallu Fall ibnu sëriñ Cheikh Fall Khady Gueye sëriñ Moustapha Fall ibnu sëriñ Cheikh Fall Khady Gueye jëwriñu sëriñ Fallilu Fall Cheikh ak mbooleem njabootu sëriñ Cheikh Fall Khady Gueye ñoo am mbégte di leen ba ñu baaxoo at ba maam mbacke khadim rasoul ca mbacke kadior ñu jàpp ko dimanche ñaar fukki fan ci wéru koor gi war a fan wéri fan ak benn ci wéru mars 2024 ma ngay amé kaw lax ca kër sëñ Mortala Fall daañu ca fàttaliku defal ci ay ñaan sëriñ Cheikh Fall khadi gey Cheikh mamoud Moustapha Fall ak mbooleem njabootu mam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina dañu yendo jàng alquranul karim qasida istighfar sikkar ak salatu ala nabi mom lañu yendo fanane ko ba ñu noddu fajar dal di sant ñaan yebi mbolo ma sëriñ Fallilu Fall jëwri ñi sëriñ Cheikh Fall khadi gey mi ngi koy yëgal njabootu khadim rasoul képp ko mu bokal mam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ko mu bokal Fall Mame Saliou Fall seex yi aju ci kër Serigne Touba ak seex yi aju ci kër mam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina bokk jullit yi ak bokk taalibé yi kilifay diine ak kilifay adaya ya ci son excellence président de la république monsieur Macky Sall monsieur galoba ministre de la fonction publique maire de Mbacké monsieur Serigne Mboup maire de la commune de kaoula gouverneur de kaoula diko yëgal wa dairatu Jësbul Mourid lëkkale mbooleem ñi sato ci mam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina waa daairatu Sikrula ci njiitul Serigne Abdou Mbacké Diouf mbooleem daayira yi aju ci kër gi di soñu jëwriñ yi ak mbooleem membre yi ak taalibé yi gor ak jigéen mak ak ndaw ci réew mi ak bitim réew sëriñ Seex Fall Xadi Géey di leen yëgal màggalug ñaar fukki fan ci weeru koor gi ngir fàttaliku ak barkeelu bis ba maam Seex Ibrahima Fall Babul Muridina jaayanteeg Seex Ahmadou Bamba Mbàkke Xaadim Rasuul ca Mbàkke Kajoor ñu jàpp ko ren dimanche ñaar fukki fan ci weeru koor gi fanweeri fan ak benn ci weeru mars 2024 te Kaolack mi ngi koy yëgal jullit yi taalibe yi xarit yi soppe yi dëkkandoo yi wëlëru yi ak am ji jàmm yi mi ngi ñaan ku teew ca bis ba Rafal ñew sa yar bamba tok diko jeer deti say rek batin ba xam ci lu woor dal di fat ay mbiram jox ko jajj di bur def digal mu di yoon bu jege di ca jaar Cheikh Rafal pas pas sam ba di saf ak ñelor kur su sadikh ya rombu na len teggi tour Cheikh Rafal lambi beuri ya la ub jël kubeer digal ak addu ya dambe dam ya ñu ngor Cheikh Rafal no ngi ñaan yalla dolli colère tek ca sam njabotam gi bolenu ar la qualité fela di